Sadio Mané mii wala n'importe quel footballeur kan ci ñoom nga mës a gis muy football ci biir terrain bi ba ñu nodd mu jaral ko mu bàyyi footballam dem julli ji xalaatuñ ko bës bu ñu koy def ñu leen di dàkk ci club bi ñu nekk pour lan parce que dañoo signé contrat te ñoom lu ñu signé xam nañ ko bu baax a baax. àdduna du neex ba nga gis leen ñuy football en plein match dagg seen match naan dañuy dem du julli yow bu leen roy ci loolu bu leen topp ci loolu jaamul sa borom nga xam ne yàlla daf la sàkk pour nga jaamu ko te nga xam ne seytaane porte yëpp lay saisir. Iblis day saisir toutes les opportunités pour t'égarer hors du chemin d'Allah ngir Yalla yewul ay coupe d'Afrique football yi yep sioniste ñoko organiser uniquement pour distraire jeunesse bi moo nit ki da nga wara conscient ci lolu nga moytandiku ko xam objectif bi la indi ci kaw souf nga nek ci lolu non focus ci waajal sa bop waajal sa dé te xam ne bés boo fi jógee ñi ngay andal ni yep di foo di ambiance deug la dé football kharamul parce que bu fekkente ne nit ki daf koy def pour tàggat yaramam genre daf koy def nii pour sport loolu lu baax la mais bu ko nit ki jëlee def ko métier borom xam-xam yi nee nañ si boobaa dafay xaram tey jii ñaata nit ñoo jël ko mel ni Sadio Mané def ko idole jàppee ko idole def ko référence xam ci moom loo xamante ne nii xamuñ ko sax ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne nii moom la yàlla ni tey jii ñaata sénégalais jullit nga gis lu ñu maîtriser ci palmarèsu Sadio Mané li ñu maîtriser ci biographie Sadio Mané maîtriser wuñ ko ci biographie yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom la yónni ñaata jullit ngay gis ni ñu maîtriser Sadio Mané club bi mu nekk li muy fayeeku numéro maye bu muy sol maîtriser vie yëpp lépp lépp lépp niñ ko maîtrise biñ ci am amuñu ko ci seen diine amuñ ko ci alquran amuñu ko ci nit ki nga xamante ne moom la yàlla yónni ci ñoom mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lan parce que dañoo jël Sadio Mané ak ñi mel ni ñoom damaa jël Sadio Mané rek comme modèle mais ñoom ñëpp laay waxal ñoom footballeur